tuuti rek <laughs> quelques minutes s'il vous plaît asalaamaaleykum internet Senego TV ñu ngi leen di nuyu di leen di dalalaat bu baax comme tey ci suba rek ni ñu yendoo ak yéen ci actualité li nga xam ne mooy 144e édition appelu Seydina Limamou fii nga xam ne mooy Cambérène tey ci samedi bi lañ ko tàmbale nag mu nekk diirum ñaari fan ndaxte dinañ ko def suba ci dimanche incha allah fi nga xam ne mooy Yoff wante tey Cambérène ak Ngor lañ ko tàmbale wante duñu ñëw ba fi nga xam ne mooy appelu Seydina Limamou limaamu laay te duñu jël ñi nga xam ne ñooy taalibe Seydina limaamu laay ñu xàmmee leen ku ci nekk ci parti bi ngay nekk tey ñu dalal ki nga xam ne kenn du ko présenté abu kebe bu série Karma lañ daal di dalal ñu daal di ko nuyu rek bàyyi ko ak internet yi ñu ngi lay nuyu Abou. maa lay nuyu jànke di nuyu waa Sénégal di leen euh, jox seen wàccuwaay di leen euh, sant bu baax si appel bi ngeen ñëw nga xam ne ñun moom rek lañu am gëmuñu kenn ku dul seen alimaam te lu mu woote lu nekk dañ siy xaar suñu tànk tubay kon tey bu ngeen ñëwee soxla soxla ñu di wax ak ñun da leen di wuyu ngeen dëkk ñu seen micro ñu wax ak yéen <laughs> kontaan nañ bu baax Abou gis nañ aussi planning bi tey chargé na bu baax mais nag xajal nga ñu ci ndaxte gis nañ invité yi gis nañ aussi va-et-vient yi tout mais accordé nga ñu un petit peu ci temps bi pour mën a wax ak ñun ci appel bi tey appel bu ñëwee Abou nan la koy dundee ci waajtaay bi car ci ci ci contentement ba nan nan ngay dundee appel bi buy approché. mbégte quoi mbégte parce que mooy li ma la wax sànq rek amuñu dara lu dul appel bi. te mu ñun mooy suñu événement kon tey bu ñëwee dañuy xar suñu tànk tubay def si lu ñu mën mbégte la boo xamante ni man damay yàkkamti sax mu ñëw tey buñ ñu koy préparé dama yàkkamti jour bi ñëw bañ commencé bañ nekk si préparation yeeg nekk si bagage yeeg yooyu vraiment mu nekk loo xamante ne ni daal di ñaan yàlla ñu feete ko ay at yu bare bare bare bare bare waaw si barke Seyna Mohamed Seyna di maamu borom appel bi <laughs> waaw journée bi tey ni ma ko passé tey maa ngi fii sama benn kër xarit bu tudd Falaay mu nekk ba itali ñëw ren ma ne tey moom ren moom damay ñëw bokk ak moom fii ñëw seet si ko këram toog moom yandoog moom añandoog moom mu nekk lu ma neex nekk euh, loo xamante ni moom ak soxnaam nekk loo xamante ni sam dafa fees sama xol waaw parce que yombul ko a nga ñëw ñu jox la cër toppatoo la te am nga kër te sama kër am naa fay gan mais ñoom dañu invité ma baay loolu ñëw <laughs> kon xam nga ne kon am na fu ñu toll si man ma leen di sant bu baax di leen nuyu au passage muy euh, Falaay ak jabaram. d'accord tey ci journée bi dem nga Cambérène. dama biddanti nag <laughs> waaye dem naa ba ziar am na lu ma si jot fekk tuuti doon na ma neex ma fekk commencement bi nag mais dama xaw a biddanti quoi ma xam xaw a fekk muy xaw a jeex yooyu mais metti ma nag ak ni ma ko nammee woon a mais dama koy kar suba si jàmmalaay yor-yor incha allah. waaw. <laughs> tey la nga biddanti mais tey ci message yi nga xam ne jàllale nañ ko ci appel bi yan message nga ci gën a jàpp ci grande ligne. waaw message bi li ma si jàllale mooy di ñaawlu li fi xew li jot a xew parce que lu toll ni appelu seen alimaamu ñu koy préparé ku ñu xam ñun xam ñu carrément ñun si doxuñu si ay coow si lu si lu sëñ bi santaane rek si lañuy dox kon tey bu demee ba nekk di préparé suñu bés. ñu am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si wet gi ñoo xamante ni xalaatuñ loolu ñu ngi def na ko dul noonu moo tax ñu ngi nii daal mais maa ngi wax autorité yi ñu jàpp si xam ne Sénégal suñu Sénégal la xam ne ñu si réew ñoo ko bokk lépp loo xamante ni day day day taxal suñu day taxal suñu dëkk ñu dind ko teg ko sànni ko fële indi li nga xam ne mooy avancer suñu dëkk parce que dëkk bi ñu ñëpp ko moom kenn bu bu gaañoo rek ñëpp a gaañu dañ waxtaan suñu biir ñu déglu kilifa yi toog waxtaan suñu biir xool nu ñuy trouver solution boo xamante ni dañuy àndandoon ñu ñëpp nekk benn parce que benn de drapeau rek la vert zone rouge amul beneen buy buy taxaw amul amul beneen. amul beneen Sénégal amul beneen dëkk boo xamante ni dafa rax si biir bu dul Sénégal kon pourquoi ñu mën a duñ toog waxtaan suñu biir nañ jéem a def loolu. adduna amul solo lépp loo gis dafay jeex lu dul jeex amul. loolu rek moo ma métti woon si préparation appel bi ba am na ñoo xam ne dañoo tiitoon foog ne appel bi dañ gaa yi dañuy foog ne dañuy manifester si jour appel bi non loolu mënul nekk sax ñun daal ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla waaw moom defal yokkal ñu jàmm suñu réew mi waaw. waaw waxtaan bi mooy xam nga tey politique dafa doy waar mu doy waar mooy dafa xaw a salte tuuti tey jii nii. ñoom ñëpp ku si nekk dafa bëgg yor Sénégal ku nekk Sénégal ko ñor peut-être moo tax mu ñuy rey seen bopp mais si biir yor Sénégal boobu noonu tey est-ce que buñ toogoon waxtaan ku nekk bañ a xeex kenn ku nekk bañ a def kenn dara ñu toog waxtaan suñu biir est-ce que boobaa jàmm du am ñu bañ a xëccoo xëccoo réew moo xamante ni ñoo ko moom ñoo xam ñëpp ay sénégalais lañ. beneen nit jógewul Gambie wala kenn jógewul Mauritanie wala kenn jógew di xëccoog ñun ku boobaa ñun ñooy rayante mais ñu ñëpp suñu biir la quoi Sénégal Sénégal la quoi kon loolu rek mooy waxtaan bi waxtaan suñu biir xool li tax Sénégal di avancé ñu àndandoo loo àndandoo defandoo loolu Sénégal jëm kanam loolu rek laa laa am lu may wax si loolu am na solo ndaxte it euh, ay porteurs de voix ngeen nit ñi di leen di suivre c'est important que dëkk bi bu tolloo fii ngeen joxe li nga xam ne mooy seen xalaat mais dañuy ñëw ci beneen partie avant ñuy gën a xuus ci boobu boobule actualité. Abou dañ ko xam ci Karma mais xam ko aussi ci milieu cinéma mais depuis un bon bout de temps Abou kenn gisatu ko depuis Karma. waaw Abou nag Abou du ma ne sax Abou Abou moom jàll na quoi. Abou Sax jàll na mais damay ñëw si Alioune Badara Alioune Badara bi ma doon <laughs> wala Martin bi ma doon nii maa ngi si maa ngi si ay bagages maa ngi si ay préparation yoo xamante ni ya yàggutul dara léegi rek incha allah c'est que xam rek soxna dafa neex boo takkee soxna boo takkee soxna il faut nga noppala ko il faut nga noppala ko dem toog soxna si toppatoo di ko nuyu bu baax sama jabar di ko nuyu bu baax. soxna si dina non non soxna si da ngay bàyyi man ma ñëwal sa bopp <laughs> da ngay bàyyi ma ñëwal bopp. waaw parce que soxna si moom vraiment doon na koo xamante ne nii ah maa ngi koy gërëm di ko sant parce que nit ku baax la nit ku ma yërëm la te nit ku ma toppatoo la waaw. soxna si Abu jiitu nga ma ci rek yaa ngi koy yàkkamti ci question bi xam naa ni li ngay sentir nii neex na torop parce que amul la mais bu ko yàkkamti ci kanam. Ah, mais nag sama jabar duma ko cof de <laughs> duma ko coof xalaatuma ko sax. dama koy tibb <laughs> si tibb tibb ko mais amul problème dinañ si ñëwaat <laughs> t'inquiète même pas. <laughs> lan la ñuy xaar ci projet yi ndaxte gis nañu ay projet yoo xam ne génn na ci Mbarodi même aussi ci yeneen maison de production mais gisaguñ la ba tey sa apparition depuis Karma. non xawoon naa tukki tuuti nag xawoon naa génn réew mi tuuti xawoon naa génn réew mi tuuti quoi peut-être xam naa loolu moo tax ñu gars yi gëj ma gis. mais actuellement la là ñëwaat na maa ngi fii quoi maa ngi fii ñëw naa te gars yi moom incha allah rabbi lañ ñu gisaan sa écran yi fan bàyyi fan non duma bàyyi Marodi man bàyyi ma fenn ku ñëw ma liggéey ak yow ku ñëw ma liggéey ak yow moom kay nag bii am rek mu ñu liggéey bii bu amul moom garaawul quoi muy Marodi ak feneen si yam mais am Marodi ñoom vraiment ñoom sama ay nit lañu quoi même bu dara mana ñoom dañuy déggante tout le temps ku su mel ku su mel ni Mass dañuy déggante quoi déggante du bari waaye. waaw da ngaa bàyyi nag dem ba Sénégal takk. sama jabar sénégalaise la. da ngaa dem Maroc. mais Maroc la la nekk sama jabar dama koy seeti de ah du ma ko seeti doo bëgg ma toog fii non jamais ah man maa dem. tey boo xaful sax ma demaat léegi <laughs> non mais lu leer laa la wax <laughs> jabar jabar du ay caaxaan yow <laughs> surtout sama bos. non mais ah célibataire xanaa ñu góorgóorlu rek am na ay célibataire taxaw di ma xool fii am na nii ñu ngi taxaw di ma xool waaye ñoom nii ñoom xam naa ñoom wala takk nga léegi ah, kon baax na waa di wax célibataire yi ñu dem takk jabar parce que jabar neex trop. man damay rëccu sax la moo tax ma yéex a takk jabar non je te promets dama ko rëccu dama ko rëccu de parce que benn boo takkee jabar da ngay donc responsable dan lay te te di nga ragal a def loo xamante ni naka sudul noonu la parce que yaa ngi soo sa njaboot ëllëg te ñaanuma yàlla def loo xam ne damay génn ëllëg sama njaboot génn ñaan seen papa moo fi daan def nangam c'est ça moo tax jabar dama rëccu li ma ko li ma ko yéex a takk rëccu naa trop waaw. en tant que femme lan nga koy wax ci genre borom kër bi mu am parce que boroom kër la boo xam ne mu ngi nekk ci milieu bi nit ñi xam nañ ko lan nga koy gën a ci ménage am. yow moom yaay xuus sama jabar ji de. mariage bi ñëpp ñoo ci kontaan te dañuy gis ndeysaan seen photo yi ni ngeen di xam nga amour téyewante loxo yi tout Sénégalais yi dañu kontaan te est-ce que gis nga sama jabar ah kon baax na waaw léegi yow la ngay xuus sama jabar bàyyi ko fi mu toog <laughs> kooku déggoo li ma la kooku bëgguma sax muy feeñ dégg nga di ko wax ne ko mu muñ quoi parce que c'est célébrité yombul yombul quoi te gis naa ne mi ngi muñ muñ kat la bàyyiwu ma ko seetaanu ma ko quoi lépp lu may dugg xam na ko waaw saa moom xelam dal na moom waaw mais dama koy ñaan rek mu gën a yokk euh, confiance bi gën a muñ xam ne xam ne tey jii nii moom kiñ dem fekk biir këram takk ko indi ko sa biir kër yaakaar naa ne kook amatul lenn loo xamante ni war nga ko mën a prouver parce que dañ fee bàyyi ñëpp ñëw jël ko takk ko xam naa loolu xalaat loolu la gis ba tax mu ngi muñ bu baax yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm rek <laughs> waaw. <laughs> dugg ci xuusat ma jàll ci beneen partie ndax gis nañ bis gis nañu aussi actualité yi fi am bi fi gën a dominé ci showbiz même si bu nekkee ne am na 40 jours wala am na 20 jours wala am na 8 jours gis nañ disparition Mama Diaga mu nekk une grosse perte pour ki nga xam ne mooy artist bi di Wally Seck mais aussi pour sa famille. waaw suñu yaay Fatou Kiné Diaga. nit ku baaxoo naa man li may wax souvent man ñaar yoon laa ko gis ah ñaar yoon laa ko gis benn bi biir këram la beneen bi am na lu xewoon ma gis ko mais ni ma ko gisee rek laa xam ne nit ku baax la te doomam Wally dañuy toog mu may wax si yaayam loo xamante ne nii ah moo tax ba gën ko fonk Wally tey tey su ma ko fonkee bëgg gi mu bëgg yaayam la ak mbaax gi nekk si yaayam moo tax man fonk Wally Seck parce que ku nekk xam na ne ni ma mel si sama yaay ba ñaa ko ba xaw ma sax sëriñ ku dul sama yaay Wally Seck loolu moo tax ma jël ko fonk ko def ko si comme sama bopp parce que ni ma ni mel si yaayam noonu laa mel sama yaay tey bi yaayam biñ ma biñ ma biñ ma woowee téléphone tàgge ma yaayam avant ma koy gis si internet bi am na ku ma woo ma waa mais est-ce que yaayu Wally dafa génn àdduna ma ne ko man yaayu mu ne ma yaay waale ma ne ko ah non góob ma ko de ma duggee si internet bi ma gis ko sama xel demoo si kenn si ku dul si waale parce que Wally Seck takkul naanul sanguwul yaayam mooy sëriñam kon tey yaayam bu demee ba woon ki ginnaaw Wally fan la jëm loolu rek moom laa xalaat mu nekk nit ku baax jaaga yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana fi mu fi mu fi mu jëm gënal ko fi mu jógee lépp lu mu naan def si àdduna si lu baax yàlla na ko yàlla fay nit koo xam ne daan dimbali néew di doole daan fekk ay néew yi hôpital yi di di leen sang te téyaaba yooyu yëpp imagine bu ko yàlla dajalee def la ko àjjana directement te gëm naa ne mère Diaga ma nga àjjana di ko ñaanal suuf si kawam moo papa Thion ak euh, bi moom yi ñoom ñëpp di la ñaanal yàlla xaaral ne àjjana àllaaxira ren sonn na fulaay am sa benn bu génn àdduna temps yi passé ma jigéen sekk tamit. di ko ñaanal sama ko yaay di koy ñaanal yàlla na ko yàlla xara ajana àlaxiraam doon na flaayam di ñaanal njaboot gi yëpp yàlla teg si ñoom loxo hmm. waali waaw lima koy wax naa ko pare nee naa waali àdduna mu ngi nii avant sa yaay di gaañu lu ne dégg nga ko sa ginnaaw ñun ñi la xam xam nañ yow yaay kan man ma ànd ak nit ku bon du ma xamante nit ku bon Wally wax yomal xiyaam di dina lakk ay nit yu bari dina lakk ay nit yu bari yomal xiyaam parce que nit koo xamante ni la day def lu baax am na lu baax lu muy def loo xamante ne nii da koy def bëggul nga wax ko dafa wuyu turam gis nga Wally <laughs> Wally ku ko xamul xamoo ko moo tax ñuy wax si ginnaawam ñu bari xamuñu ko quoi mais li ma koy wax mooy mu gumba taxlu xam ne carrément fii ñëpp la ñuy waxal nit ku baax rek da lay waxal parce que nit ku nekk am nga ay noon te boo amee noo mel si si dëkk bi rek yàlla di yokk di yokk sa di yokk sa sa sa mën-mën di yokk li ngay def di yokk sa am-am il faut que noonu yi bari adduna bi dama koy doxal boo bëggee dox si àdduna bi da ngay gumba taxlu gumba taxlu moo lay doxal si adduna bind sa ginnaaw je m'en nga dem Wally Seck moom neen maa la ko wax yomal xam dina lakk nit yu bari nit gënu ko si àdduna la du question li mu nekk sama gaayen deful ma dara yàlla moom ma booleek moom bëggal ma boppam ma bëggal ko sama bopp ñu nekk ay gaayen loolu rek la du leneen ak bëgg bi mu bëgg yaayam parce que à chaque fois bu ñu toogee si wax yaayam la may wax kon li may wax moom laay wax man kon li muy wax li muy wax moom laay wax man li muy wax moom laay wax man takkuma naanuma sanguwuma su ma jaaxlee sama yaay laay ñëw tàllal samay loxo moom noonu la ko daan nekk di waxee umma bi bu jaaxle say yaayam lu mu guddi guddi yaayam lay dem te yaayam bàyyi ko woon nag kon kooku instant bi dañ ko a jàppale bu baax xam ne desetu fi kenn coon dem na moom mi nga xam ne mooy seen taw dem na yaayam dem na moom moo fi des uuf nit ñi njaboot gi kooku buñ ko jàppalewul lu ñu a def buñ ko jàppale rek Sénégal nekk di ko ñaanal di ñaanalaat Mère yàlla xare ko àjjana di ñaanal wax waali mu muñ te muñ moom mooy lépp instant yi muñ la ko fi sës. li may tàggoo mooy damay gërëm sama yaay ah, avant tout damay gërëm sama yaay di ñaanal sama papa fi mu tëdd suuf fooyeef si kawam ak sama mag may sa mbay di sant falaay bu baax ak jabaram <laughs> parce que ñoo naa tey ñu dalal ma yëkkati ma. teral ma ñu nekk ay nit yu baax di la ñaanal ñu ñu koy fete ay ñu koy fekke ay at quoi di wax di nuyu waa sa Sénégal ñoom nga xam ne ñoom fo ma nekk ñu lëkkati ma quoi ñoom sonal nañ ma <laughs> waaw di ñaan yàlla fekk def appel bi ñu fekk ko si ay at yu bari kenn bañ a manqué parce que xéewal la mbégte la quoi parce que boo dee boo xoolee tey actualité tey kenn xoolul dara lu dul appel bi parce que dafa jar xool parce que tey ki woote mooy mën a mooy mën a woon démb mooy mën a tey di seydina alimaam alayhi salaatu wasalaam moo ne woon aji boo daaya laahi yaa man saxal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum comme yàlla am yónni si nit ak jinne ça veut dire que loolu woowul laaya rek ñëpp la woo kon boog di ñaan yàlla chaque année mu fekk ñu koy mën am kàttan bi waa gën a ñool waat yëre yu weex yi yokkaat yëre yu weex yi di solo sumeeku <laughs> waaw ñu may loolu yàlla baax na di ñaan ñëpp am jàmm Sénégal def yàlla def jàmm si Sénégal suñu réew